umusi yi mujj nañu ko euh, gis euh, gannaaw ba nga xamante bi rek doon nañ ko wër lu tollu ci fukki fan ak benn ngi ni ñu ko gisé nak ci yoonu aéroport international bu Diass gannaaw ba mu réré ay mbokam mom umus yi di ab soxna so xamante bi mu ngi am lu tollu ci ñaar fukki atak juroom ñaar gannaaw ba mu réré ay mbokam kon dafa tàgg dem marché ci noné la ko euh, gëj tek teg ñom nak gis nañu ko mom rek ci yoonu aéroport international Blaise Diagne mu ngi and ak wér gi yaramam lu waral mu réer lu waral itam ñu fekk ko ci yoon aéroport international Blaise Diagne boobule lépp daañu leen ko toppal bu defee rek ngeen mën a am xibaar bi ci Bambilor info